Exactement. Je pense que nous avons fait un reportage sur comment la plage est restaurée de façon plus ou moins écologique, mm-hmm. mais aussi comment ça a permis aux populations accéder, mais aussi les euh, conséquences par rapport au euh, tourisme, euh, écologie, et tout court. C'est ça. Nous avons le reportage. Toc Toc Sénégal. muy màndargaal ñaari xar kanam yoo xam ne mën nañ ko fee seen boo nekkee ci biir mu lay wan gis-gis bu rafet bu plage bu sali waaye boo génnee nag muy firndeel ne hôtel bi ay at a ngi mu dëj mu doon lu doy waar ci ñu fi ne waaye fu soriwul dara fii ñeneen ñi ñoom ñu ngi profité bu baax ci defaraat bi nga xam ne nañ ko ci plage bi ay brise lam ak ay épi don ay xeer yu dëgër yo xamné taxna plage bu sali gagné juróom ñaari kilomètres ci gouday ak juróom fukki mètres ci gataay des hôtels sans plage et puis kooku ça ne faisait pas l'affaire et puis ça ça retombait pratiquement.

mais man moom personnellement dama ne woon lii mënul nekk man dama ne woon lii mënul nekk plage bi on peut pas le regagner mais à la fête gars yi defaat nañu bu ñu jotaat plage bi li si res moom yenn hôtel yi moom ñu pexe bu ñu nekkaat nekkaat activité parce que bii site bu yàgg la te tubaab yi site bi lañ bëgg. ngir nag touristes yi ñëwaat bu baax ñi nga xam ne ñoo leen di gunge ci plage bu Saly lu ñu bëgg mooy. lu jëm ci wàllu mbarit mi ñu gën koo jox cër te mu dëppoog alam bi képp koo xam wàcc si njëf yi yaa xam foo jóge Thiès nga jóge wala Dakar ñoo fi pour bëgg a def pique indi say bagage ñun dañ wax ne boo leen defee seen pique-nique ba pare na ngeen bale lépp def ko ci poubelle yi poubelle ñu ngi nii à côté parce que fii aussi tamit zone touristique la boo xamante ni vraiment waruñu fa permettre kenn koo xamante ni da nga war a ñëw jëlee say mbal ci àll bi ñëw di ko indi fii di ko. buñ lépp nag mi ngi toll ci. fukk ak ñaari brise ak juróom-ñaari épi yoo xam ne mu doon ay xeer yu dëgër nekk fii ci plage bu Saly ngir daal di koy aar ci yokkute géej gi li nag mën a tax askan wi ak ñu fi liggéey mën cee profité bu baax ba jant bi so Alors, euh, puis moi j'ai les étoiles dans les yeux. Hein. <laughs> ça me fait, ça, ça, me rappelle beaucoup de souvenirs euh, parce que et ça me rappelle le fait que euh, on n'a pas forcément besoin d'aller à Bali, mhm. euh, de sortir du Sénégal. On a, ou à Las Palmas. ou à Las Palmas, n'est-ce pas <laughs> ce sont des, des, paradis. Fiji Sénégal, Nubri Deni, euh, Djugé, Sendek que ce soit le, le, le Saloum, que ce soit Sali, que ce soit le Lac Rose, c'est des endroits magnifiques. Mhm. Euh, liggéey bii mais de femme solo De femme solo parce que ce sont des des endroits qu'il faut préserver n'est-ce pas euh, c'est ça man man sama question euh, comment est-ce que cette initiative là est est, est venue ak nan lañ ko euh xam nga boo boo Sofia plage Boussali, dans lequel 17 hôteliers dañu demoon ba tej lu waral lolu moy euh, ndox bi dafa demoon ba avancer bu baax partie bi nga xam ne dañ defee entretien yi sax foofu que nit mënu fo won taxaw parce que géej dafa yokk won bu baax dans un contexte de changement climatique ba nangul li nga xamné moy euh, hôtel yu bari euh, reportage manka tambalé hôtel bo xamné hôtel historique là. mais dafa tej pourquoi mu tej parce que érosion côtière ba mu commencé ken mënu fo nek c'est normal parce que géej buy daw euh, di avancer. ba dal ci ay kër di daaneel ay ay kër di yak li nga xamné moy hôtel ken mënu fo teg donc état du Sénégal lancé à travers un projet de développement touristique le projet de xamné luko taxo jog en 2018 pratiquement lañ ko commencé mais dem na pratiquement de deux ans ñuy liggéey le bari ak ay partenaires étrangers. Mhm. parce que bo démé yenn ci réew yi tugal lu ci Hollande ils sont très forts quand il s'agit de restaurer manam fekk place bo xamné dafa yàqu ba kenn mënu fa comme ce qui se passe actuellement à Bargny mais ñu defar ko ba nit ñi mën fa ñëwaat. Mhm. di profito ci li nga plage bi ce qu'ils ont fait c'est très simple, c'est-à-dire dañu def bon simple c'est une <laughs> opération ah assez, assez complexe parce que géej Boudemba avance, il a beaucoup reculé l'eau, reculer l'eau. il faut quand même vraiment des méthodes du am solo pour nga mën koo def dañu fexe daal installer li nga xam ne 12 brise lames et brise lames yoo xam ne day jàkkaarloo géej gi di tere mais aussi teg ay épi épi yoo xam ne day tax affaire yi gën a dëgër mu sampu pour que géej gi reculer loolu moo tax euh, soo sur sept kilomètres lañ gagné par rapport ak érosion côtière mais aussi 50 mètres de large pour mhm. permettre ñu teg fa li nga xamné moy sable bu set euh mu ci ay yo xamné dañ koy gis sax yenen dëkk yi mais ñu défarat ko bu mu set euh fexé dal ba nit ñi di ñëmal ñëwaat yi nga xamné moy sali pour profiter ci plage bi mais aussi permettre à certains hôteliers de euh, ubbiwaat li nga xamné moy mooy seen buntu parce que ñu bari dañu tëjoon c'est ça, c'est ça. De femmes solo, et puis ça permet euh, le développement, euh, que ce soit euh, économique aussi, hein, parce que l'Oloudé attirait aussi beaucoup la, la clientèle, je pense. Et puis, est-ce qu'on peut parler de solutions écologiques même, qui parce qu'on a l'impression que c'est venu régler un problème Bon, solution écologique, peut-être que Dani, la réponse est mitigée, hmm. parce que quand même, peut-être Dani Yark peut-être que nit ki mo doxale no xamné ne jaarul yoon ba tey ji géej gi di avancer ba nangu li nga xamné moy suñu kër ba nangu li nga xamné moy suñu hôtel mais euh, ils ont essayé en tout cas de restaurer la plage parce que tey ji dañu nek contexte bo xamné Afrique ñun on pollue que 4 au plan mondial 4 au plan mm. mondial te tey ji dañuy wax lu wa jëm ci walum adaptation adaptation mu nek climatique manam naka lañu mëna def tey ji bu fekkee ne passe dafa yoroon këram këram géej gi nangu ko comment on peut aider passe parce que ce n'est pas de sa faute en quelque sorte Parce que nous, avons li le de de mooy pour mieux être mieux vivre C'est l'adaptation climatique je pense que c'est c'est quand même modèle d'adaptation, même si euh, on peut se poser des questions par rapport à notre comportement toujours parce que vous avez eu un débat intéressant sur la plage malheureusement, la plage de malheureusement plage Dakar est beau je pense qu'on va parler d'autre chose, même si le président a décaissé, même si l'État a, euh, décaissé 18 milliards mhm. pour une partie de Faradko, mais c'est l'arbre en fait qui cache la forêt parce que boo xoolee dit jii ñu wax dëgg rek mooy plage de Ndakaaru dafa pratiquement parce que gars yi avons ngi fi activités. activité avons xam ne activités, ak li nga xamné moy ñun ñom ci accès badola yi mhm. gis nga plage bu Saly bañ ko tu vois des jeunes qui xamné des sacs de dañuy ñëw jouent jouer au football parce qu'ils ont droit parce que buñ ko ils vont sans doute dem c'est c'est interdit après ci top donc c'est important to nit ñi fi ñu yenn site yi nga am nañ accès bi ñu dem mhm. parce que c'est pas parce que c'est sali que accès c'est important que hôteliers yi touristes mais aussi ñeneen ñi nga accès ci li nga plage c'est important c'est important et puis ça donne accès euh, un pas ça donne accès tu vas faire un tour là-bas. <laughs> non ça donne accès. Je lu ci gëna neex ci ci reportage moy euh, et hôtel mais taxul askan wi am accès. c'est-à-dire que cette cohabitation est possible. nous nañoo démocratiser ce modèle là parce que soy xol ñun fi à Dakar à mon Il y a des vigiles qui sont là. Il faut bien tu payes si tu as. Euh, accès à la mer, c'est un accès démocratique, forcément. Guide qui il y a le est là. Qui donc il faut avoir accès. Xam nga guide ko déféré ni, di nga nit bu Oui. parce que faut ko déféré aménager ko. am football, solo parce que tax ngay les hommes nit ñi dañoo prendre l'air maanaam da ngay xata xata xat ah ba yow da ngay dem ci géej day mel ni réconcilier même si am na ñu fay dem sax ngir jooy am na ñu fay dem ngir mer parce qu'on vit dans les appartements on vit dans des espaces clos nit ñaa ngi rayante ci biir parce qu'ils s'étouffent au fait ils ont besoin de s'oxygéner mais il y a pas meilleure place que le jàkkaarloo géej gi nga l'immensité de la mer mm. dafa divin en fait mais ce sont des modèles également lu ma am importance également à démocratiser parce que sooy defoon ngay reportage yu baar ñi nga gis nan la géej gi di nangoo seen seen bâtiment yi avancé de la mer. c'est mm-hmm. ko gën démocratiser def ko ci bërëb yoo xam ne euh, ñoom ñu ngi leen di géej gi mi ngi jël seen dëkkuwaay gàmma góor am na benn reportage bi mu ci defoon ñu gis ni ndox maa ngi ci biir yow demoon nga fa problème toilette publique sax yaakaar naa ni foofu aussi il mérite des des projets comme ça si si parce qu'il mérite des projets parce que kër goo xam ne moom amul toilette je pense que c'est c'est un danger c'est problématique un danger te euh, dafa nekk loo xam c'est presque tabou mais am na dëkk yoo xam ne am na kër yoo xam ne amuñu toilettes parce que géej gi moo dem ba daaneel seen toilette ba tey jii pour ñu suturloo ils sont obligés d'aimer leur ça c'est une réalité pour je pense que le projet d'urgence là, ça, pour yenn dëkk yi ñu bénéficier restaurer Voilà, à défaut de restaurer nous allons adapter ñu peut être dem une fois, xam ne fa mais euh, parce que lu avons wax solo par rapport à euh, accès pourquoi c'est important parce que je vous donne juste un exemple anecdote boo xam nous dund nañ ko bañ Las Palmas euh, dañu dañu dañu wàcc ci ben, quoi on avance on avance ñu gis plage mané sama ñu ma ko quoi ma ne fii plage publique la ñu né non non fi plage privée la. Mm. parce que c'était tellement bien aménagé. Mm. Euh, bien structuré. Mm-hmm. et proche des hôtels. Mm-hmm. hôtels yo xam hôtel de luxe. donc dañoo dëppaat parce que dañ né non fi amuñu fi accès. Mm-hmm. Mm. donc voilà peut-être que ñun. réflexion logiquement logiquement en fait. parce que pour quand on voit par exemple comme passe l'a dit euh, bërëb yoo xam day am ay vigiles. c' est ça euh, très luxe dañ naan ñun amuñu fa accès. amuñu fa droit alors que c'est archi fou ailleurs. Euh, euh, Sali, on en a aussi, c'est un exemple. Oui, oui. C'est possible que la population est mais à mm. condition qu'on nous respecte. Parce que euh, je ne l'ai pas montré, mais parfois des ignos. Vous des fait de Donc ça, ce n'est pas, pas, pas bien. C'est ça, Donc, aussi voilà. Donc, je pense que quel monde le terrain, hôtel, nous avons 4 murs, c'est réservé aux clients. Quel monde le terrain. Mais. Euh, rythme de en fait. ci hmm. corniche pour Dakar par exemple c'est hallucinant. hôtel bari gën di plage. au détriment des populations ça hmm. c'est anormal. et après on va se plaindre le fait que de voir des jeunes hmm. quitter Dakar ba pour faire ben donc ben aussi affaire mais surtout par rapport plage on a fait du sur la médecine environnementale. oui.

on a droit à un environnement sain. Un mhm. environnement sain nag bu ne dañ pas forcément à travers les textes. c'est ça Vous faites que tous, les sont capables de se réconcilier avec la nature je pense que nul, euh, vraiment. <laughs> on devrait le faire. on peut mieux faire parce que nous on a mieux. fa qu'est-ce que non. mais... non. donc à nous de. Mm-hmm. il a une double signification. Garab moy arbre, garab moy médicament. Oui. Euh, Exactement. Retournons euh, à la base des choses. Mais non, nous, euh, Papi merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, comme d'habitude, hein, c'est Ligechi Walum Alambi Solo. <laughs> Merci beaucoup. Et félicitations à lui pour le prix. félicitations encore. Qui reste dans les eaux. Oui. <laughs> encore une fois, félicitations et merci. Un peu tragique, mais bon. c'est un peu tragique. Un peu tragique, mais toutes nos félicitations à Papi Brahima Ndiaye. Papa merci beaucoup. Ah oui. Tu nous quittes aujourd'hui. Oui, euh, c'est. <laughs> Il ne prend pas son départ comme Moustapha Niass. Ah, la retraite, c'est un mot qui. Très lourd. <laughs> C'est l'heure de prendre ma retraite. Pour aujourd'hui, mais tu mhm. reviens demain, Inch'Allah. Et... Mais, mais il préparer pour demain. Sali a fait la restauration. Non, mais il faut... On sait qu'il a l'habitude, peut-être, je ne sais pas. Il en tout cas. Non, non, je ne rien.